tey Sénégal nu ko Sénégal yi noonu déggee noonu la mbir bi tëddee man inventé wu ma dara dafa am ay nit ñu ne ñoom pour ñu nekk candidat élection président ñoom jaral na leen lépp lu ñu am ci nguur gi moo xam ay poste ministre moo xam ay poste institution ñu delloo lépp Macky Sall pour nekk candidat ñun musuñu commenté loolu parce que seen droit la ñu nangul leen ko mu am ñeneen man du ma inventé man dama leen di wax lu fi am mu am ñeneen ñu ne ñoom bu ñu nekk candidat ñoom jaral na leen ay centaine de bakkan di rot Sénégal te ne seen yaayee juraat man xasuma kenn mais loolu la ñu wax ñoom loolu moom daf leen ko jaral ñu nangul leen ko waa ñun ñu ne ñun njabootu Khalifa Sall ñun ci su ci suñu xalaat bu gàtt ñun pour ñu nekk candidat ñun d'accord nañ dem dialogue politique pour waxtaanee suñu candidature ak waxtaanee tamit nu Sénégal noree dem ci élection yi pour mën ci dugg ci jàmm ak salaam gën ci jàmm ak salaam ay ñit nag nekk loolu ala kulli àll duñ ci ànd bëgg ñu dëkkaloo fu ñu dëkkul ak di ñu saag mais ñooñu dañuy fooy seen xel ma biiralaat wax ci fii man dama bëgg wax ci leer kenn feesul suma bët maa ngi tamit jéglu ci kàddu yi ginaaru kenn nenu ma te ñu ma àndal lu ma leen yéene yàlla naa leen ci jiitu